waaw comme ni ko ñu bëri ci sénégalais yi dundee rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti Pastef ak seen njaboot naqar bu mag lañ ci am ndax euh, dafa demee ndaw waaye dem gu berte ñëpp xam na ne accident moom du lu nit di xaar euh, waaye du moom donc ndax moom la ak yeneen ñaari membre sécurité bi muy ku ñu wax euh, Ama Ndaw ak ku ñu wax Moussa Camara mm-hmm. ñoom ñett ñëpp nag en plus de liggéey bi ñu doon def yàlla dafa def ñu nekk aussi mën naa ne ay membre Pastef ndax euh, li xaw a yéeme ci mbir mooy souvent bu leen jëlee ñu liggéey après un mois deux mois rek dañ lay gën a sax adopté cause bi dañ la ko bëgg euh, Fall nag yàlla dafa dogal ni euh, Pastef la nekkoon Pastef Dakar mu repéré ko indi ko ci communication bi def ko photographe attitré wu président Sonko mu nekkoon koo xamante ne nii euh, du ma wax ne euh, mënuñ ko remplacer mais du jaf du yomb mm-hmm. ndax euh, en plus de son talent dafa nekkoon jeune bu am ay ay qualité ci wàllu diine ci wàllu ngëm-ngëm mm-hmm. surtout ginnaaw bu mu jàngee alxuraan nekk un homme cultivé nekk un homme de conviction boo xam ni nationalisme ak patriotisme da ko doon dund laata Pastef mm-hmm. ñiy suivre page am yàgg nañ gis muy posté surtout ci côté Afrique. Mm-hmm. di wax ci ci ak ay idolam ay ñoom Thomas Sankara ak yu ni mel ndax lu mu gëmoon la lu mu doon dund la. Mm-hmm. mais dafa nekkoon aussi nit bu discret. Mm-hmm. xëy na parfois boo ko daan boo ko daan wax ak moom sax wala doon ko reproché dara. discrétion nga koy reproché parce que danaa ko photographe foog nga gën a njaxlaf. mais moom euh, dafa amoon discrétion bu bu yéeme. mais nag engagement mooy ça fait 4 ans 5 ans amul benn activité wu Pastef boo xamante ne nii wax nañ ko ko mu gàntal waxuma la dara mais parfois sax moo may woo ne ma am na activité fële ndax mën naa dem mën na ko demal mu nekk lu mu gëmoon lool bu jaree fanaan siège ay jour da koy fanaan siège ndax day photo ñëw monter envoyé événement mars yi weesu pendant un mois kër Ousmane la doon fanaan ndax bañ benn événement rëcc ko euh, donc bii passé tamit noonu tàggu na ma ne ma maa ngi dem Ziguinchor ma ne ko d'accord yoonu jàmm et cetera. Mhm. def na liggéeyam ba mu sotti def na li muy def yëpp. Mhm. envoyé message ne ma photo yi monté nañ ko yónnee naa ko maa mbay mhm. ma félicité ko. ci la ñu gëj a déggante ndax bi mu xëyee la ko la ko ndog-ndog bi am. Ah, Ibrahima Fall nag. Euh, c'est perte la bu mag a mag a mag wax dëgg fa yàlla pour Pastef mais pour ñi nekkoon sur ci réseaux sociaux yi di suivre ñëpp ndax ñi fi teewoon yooyu tey xëy na xaaj bi sax bokkuñu Pastef mais c'est juste que dimension nit ki la ndaw la mais man mi ko jege xam naa ne kilifa la mm. donc di ñaan yàlla mu xaare ko aljanna euh, xaare aljanna aussi ñoom amandaw Ndaw mm. ak Moussa Camara mm. ci situation yi métti dem nañ seen kër yi démb mais xam nañ ne yombul ndax lu bett la surtout que ñoom ñett ñëpp ay soutien de famille lañ. Mm-hmm. donc mu nekk lu méttee méttee métti di ñaan yàlla rek euh, fa ñu jëm gënal leen fuuf fi ñu jóge waaye tamit euh, euh, li nga xam ne moo nekkoon seen bébét ñu koy wax mm-hmm. di ci dox guddeeg bëccëg mm-hmm. yàlla def ñu ñu mën koo yeggali ba ñoom fa ñu nekk ñu am yëg-yëg bi ndax euh, ku ci mel ni Fall tàggoo na parce que bi mu liggéeyee ba pare bi xeex yi di am ci aéroport bi woo nañ ko ni ko mu def attention mu ngi ciy dem ak passion ci bi muy reporté parce que moo doon filmer di reporté mais tontoom ñëpp gis nañ ko mooy man soldaar la su dee dee naa ci toolu xare bi tamit ñeneen dinañ jël drapeau bi yeggali ko ba 2024 loolooy message bi mu mujjee lancé donc xalaatuñu woon ne euh, bi mu koy wax ci ëllëg sa lay dem mu nekk loo xam ne tamit euh, souvent les grands hommes ñoom ñooy demee noonu les grands hommes tey ban taxawaay la parti bu mag bii di Pastef fas yéene taxaw ci ñooñu nga xam ne ñoo génn àdduna tey waaw Pastef moom Pastef moom ba ñu commencé ba léegi lu weesu ñu génn àdduna lépp lu xew ci parti bi mii di bànneex ak naqar dañ koy bokk ak suñu ay militant ak président Ousmane Sonko daanaka même yi nga xam ne dañuy dem ci yeneen anam yoo xam ne sax du accident du dara chaque fois di ngeen gis ñu président Sonko sol dàllam dem jaale ji ak fu mu mën di nekk. parce que ñun noonu la ñu jàppee ànd bi on on se dit pas camarades on se di frères et sœurs benn famille lañ comme benn famille lañ nag lu wokk kii rek keneen ki yëg ko ba ci sax li xewoon ci mars bi nga xam ne ginnaaw ba ñu demee jéem a am luñ teg ci loxo njaboot yi nga gaañu la yëpp ba fii ñuy waxee tey ñëpp ñu ci amoon ay gaañu gaañu ñoo continuer di leen faj ba fii ñuy waxee tey donc lu mel noonu la ñuy wéyal di def ak njaboot gi ak waaye tamit ñi ci gaañu euh, ñu xam ne affaire bi famille la te képp ku ci nekk ak lu la ci mën di fekk duñ la mës a fàtte parce que li ñu tax a jóg. moo moo moo ñu li ñu boole moo ñu ëpp doole mooy suñu réew mi na liñ ci namm te loolu nag euh, wax dëgg yàlla bu ñu ci àndee jàppoo ci nekk ci benn nekk ci famille dina tax incha allah mbébét boobu ñu yeggali ko képp koo xam ne ndog ndog fekk na la ci wala bànneex dinañ ko bokk ak yow def ci li ci war te ni ñu ko defee woon noonu lañ koy defaatee fii te dafa sax am na ñoo xam ne dañu sax xaarul ndigalu parti bi mm. diaspora bi nañu benn cagnotte ci Kopar Express ngir fexe euh, dajale le maximum de fonds possible daal di koy mën a dimbalee njaboot ñu dem. Mhm. donc loolu euh, ci ADN Pastef la bokk te incha allah euh, dinañ ko def. ci anam yi mu waree. कर कर कर कर कर कर कर कर दूंगा कर कर